ziar bege alanya wala Pape alanya directeur rs yow ya di jende tey yow digen <laughs> ah, ni jende yow ah digen digen na xaalis mën ne. nabi vi digen na xaalis mën na lu ne yow ya di jende digen yow ñun ah ak ñu ci yow yep fi lañ tok gaay yi ne dañuy directeur rs mu ni Pape Alé lañ koy jox gaay yep ni Pape alanya tay tey nga wor ñu naan ñu no tëj leen si yow xaj bu de bu ñu tëj sa làmmiñ tey li nga dund ding ko dund bi jappé na la na la ray ci kaso bi ñu ñoo doon wër di wax ak di yuxo bañu bañu bañu bañu ba ba luy xew xew amul lu tañu ci sa combat di la liké ci daan say like di commenter sa ay vidéo di def lu nekk pour yow nga nekk au top tay nga taxaw di jëndé ben xale bu digeen boo xam ne taataan ngi ci réseaux sociaux yi ben xale bu digeen nga di jëndé yaa ngi jëndee jigéen ñi fam ma wax nga def sa poste ni carrément tëj leen seen lamine yow sa wajur bu goor sax mën ñu tejj suñu lamine wax duma la ak yow ñun réew mi gis ni ku ñu wara mëna taxal a taxaw amuñ kenn ko ñu noppiloo ñun te képp ku taxaw nak nar a jaamarloo ak ñun ko mën a doon ñun sénégalais yi la wax dé dinañ la ñu lay xaar ala ala trouvé yaa ñu cherché nak way di nga ñu trouver nak barki mohammed di nga ñu trouver yow arrogant nga jaay ak xamadi cest li ñu bañoon ci nguur gu ñëk fi nekkon rek lañ lay bañal arrogant ak réewande duñ ko nangul kenn amul Jean amul Paul sénégalais yi amuñu benn doomu xaram bu ñuy nangul lenn ci lu nekkul lu nekk ci lu nekkul dëgg RTS momoko dañ la ko dénk jangé kon am nañ droit boo fa dugalee ku bëggul ñun la carama ki d'accord accord na Sénégalais ñu ñokoy koy suivre ñooy seetaan émission ñu ñokoy enjoy dëgg moy dëgg sa di journaliste boy tan day fekk askan bi bëgg ko ta yow mi mu ngi tànn nii nga nek directeur état bu ñu neexul woon do ko nek tay nga taxaw def ci poste mo tejé seen lame yow yaa nopi lo yow est ce que dañ nopi lo won yow fi lañ la nopi lo nga ngay xataraay du yuux te bobu da nga and ak sénégalais ñu lay jappalé bu fekkon dañ la bëggono nopi lo rek nga nopi kon li nga am tay do ko am bay leen nek ay bado la bay leen nek ay workat bay leen nek ay traître waye di ngeen xamni ñun ngeen fi fekk fi ku ñu war dinañ ko digalé ak yow ba mu metti Pape ala ñaan ànd na yow ci xeex bi ñepp da nga leen jël ñoo xamante xolal musu ñu and ak ci combat jël di leen di leen di leen dugal bi RFS ba ci walu Seck ambassadeur RFS am nañu pour man Abdou Diouf sek moko gënon yeyo parce que mom mo àndoon ak Sonko di ray bu li ne album genn ay morceau def lu nek si sama xalaat man pour man Abdou Diouf sek moko gënon yeyo tay nga def ko walu sek ñu bayila ci bir tay nga defat ko wat jël benn xalé bu jigen bo xamni fi la ñu xass te ñu traité di n'importe quoi tay nga jël ko takku sawet ñu wax nga naan nopi len nabi vision réewoo da ngay rew réewlu rek moy deug ñun dañu andul kenn ci affaire nafiq andu ñu kenn ci affaire wuruj wala affaire seytaane ñun nekkun ci yoyu ñun sénégal lañ bëgg sénégal lañ am sénégal moy suñu fierté sénégal sénégal nak du genre du pôle de sénégal la tudd ngay dégg <laughs> pour mu nek lu leer tay ji lii may wax ni ci pat ala Niang bu doon Ousmane Sonko moko def wala Bassirou jamaay barki alcorane lu ko ma génn ko woon ko ni carrément kontanuma neexuma c'est ça la réalité barki dem bi ma génne def vidéo ni carrément Ousmane euh, Suzanne Camara dañ ko wara a arrêté parce que loolu mo moy dëgg parce que waruñu bàyyi rek la si ale yi ni ñi doog di saaga nit ñi di n'importe quoi tay ci mo toogee dégg ñu ne arrêté nañ ko damay content parce que dañ xamné man au moins man li ma doon bëgg man sama réew ñu koy def té bëgg mu yam fofu dama bëgg ñëpp ko xamante ne def nga ñombe fii ci régime bi passé ñu arrêté la loolu la bëgg procureur japp arrêté topp génnee poursuivre ñu commencé poursuivre gars yi man loolu la bëgg ah té loolu moy sama fierté man loolu man soxlo mo dërëm ci état bi man ndax ma ngi am sama teraanga sama roku ma ngi secteur secteur informel la nek difa dund kon état defuluma dara ba mu juddo ba leg musuma état musuma jox musuma 500000 état musuma financer témer juñu mat kon man état mu peut-être sama dundu manam li ñëwal sama sécurité réew ak li ñëwal sama dundu ni réew mu dox normal sama njabot bëgg sama dom bëgg jangi jangi bëgg a faju faju yaa ngi dégg bëgg ndox naan bëgg courant tal sen lampe man loolu moma intéressé ci sama sama mais du alal di may nguur di jox nguur nak li la mëna garantir moy dafa ma sécurité bu doy defaral ma li nga xam ne moom mooy hôpital jox ma courant jox ma ndox samay doom di jàng lu li la ma réew sama réew war a assuré kon bu ma gisee ak jox ma information yu wér kon bu ma bu amee lenn lu ci sooxe damay taxaw wax te barki Mouhamed bu amul Sonko bu ko defal ma wax ko Pape Alé Niang da nga ñëw bu commencé di woor te gis nañ ay def ay dans sorte yu sorte yu bizarre lii nga def di moom nomination bii dama ci d'accord mukk te da ko def ak taj ñun Pastef ànduñu kenn notamment Pastef Pastef Kër Massar man bi ma bokk man bi ma féetee cest à li ñuy wax dafa leer ànduñu kenn ci ay yaaman neex ak ay neexalaate amuñu boobu jot dañuy liggéey di wàcc suñu gisee ñu naqar suñu réew dañuy gis suñu téléphone wax ko bu ñu gisee lu ñu war faj dañ koy faj te état du yëg kenn du yëg duñ ko mënee loolu réew gis nga loolu mooy patriote patriote mooy maanaam boo waree lijjanti dara si sa doole bopp da boo ko mënee dénoncé ko dénoncé ko boo ne autorité ko a daal patriotisme du noonu bokkuñu si parce que dugguñu si bokk wala ñu ànd ak projet bi di wax rek nii parce que dañuy def Sonko dafa rafet wala dafa jantal wala daa mën am njàpp rafet loolu intéressé wuñu Sonko gënuñoo jantal ndax ku ñoo njàpp gënuñoo nekk boy town li am ba des mooy maanaam bi ñoo gis ni mu teg lu leer nañ lu dugg suñu bokk yii ta ay Sonko ay dof topp ñuko ay nit ñay ko top ay mi xam-xam ay boroomi xel ay chef d'entreprise yu mag yu ndaw kon ni mo rek kon pour man ku way di topp nabi Vision li am solo bu am solo moy pap alanya man ci yow sama vocal sama vidéo bi ci yow la ko jëmale ha ah. c'est-à-dire arrogant bi ngay jaay ak xamante gi c'est-à-dire dama bu ko tek ci suuf te loolu mu yow mënoo def lu ñu neexul ñu la koy wax nga naan ñu noppi leen Pape bu ñu ci say mbir do yegg fi nga yegg sénégalais ñoo la doon liké di sétane sa ay live di la top dila may dol dila pus puus fu ñu dëkkatee benn affaire teg sa kaw ñu ànd ak yow xataraayu tay nga taxaw na ñu nopi leen ndax lan ben jigen bo xamanteni ni du dara yow ti ñu ti ñu za trahi wa me nak aca nako dal raaxuñ taala la gënoonoo nek waga fuf kon tay li ngay def ni boko defé duñu saf tabaat ci sayidina muhammad di ngi ñu sa yoon yow bu lo leeree rek muy sa jamm nak jamal nak sénégalais lambda moy wax ak yow bi nga xamanteni fi dëkk ci bani bi fi di xey di dem liggéey kayam di géré yaakarul ci yow 100 francs yow ak sa état sax nak ndax suñu ko defal dara limi def moy gis lu jaadu ci rew mu wax ko bu gisee lu ko neex ci rew mu kontaan lol lool ko su gisee lu ko nakari da koy wax biñu falay dirité état barki sayyidina mohammed dama ziblé mu neex ma trop mais nak sa doxale ñaaw na salté na li waroo ko def pour man ancien RTS yi nga xam dañu nekk ci frigo yi nga waroon génne tek la ñuy gis ni kat yaa ngi leen di jappalé biñ ko défé pa da ko waroon continuer pare bàyyi la ñu liggéey mais waroo jël ay samba bu booyu tekkiwul dara muy goor ak ay jigéen nga leen dugal ci bi RTS loolu dëgg warkat nga de mais barki seydina muhammad di nga xam ne ñoo la gën xamali waaw salaamaaleykum tey moom suñu xol neexul xam ñi ngi jëm ci ndax gis nañu bi mu def muy Salma yaakaar naa Sen TV la Salma su jumul ñun li ñuy wax Pape Alé rek mooy ñun Pape nañ ko fu nekk biñ ko di défendre tamit ci gars ko doon def défendre ko ci bare bare bare bu ngeen suñu TikTok di nga gis mais seulement reculer yep yi def def ñu ŋàññi mais bii moom dafa passer côté jëmmi seulement de maanaam moom dérangé wuñu mais acte yi mu doon teg gars yi acte yi mu doon teg day mengo ak tay bu nee la tey recrutement yi du yoon parce que da ngeen par parlo waa Pastef du par parlo de dañ ne kep ko xamante ni sa jàng may sa capacité may na fal leen aduna bi non lay doxe par parloo yàllaa ko njëkk def par parloo képp ku koy bañ naa fekk nga ndax naa Tabaaraka moo ko njëkk def yàllaa créé lépp jël Seydina Muhammad teg ko ci kaw par parloo mënta ñàkk biir Pastef dafa am ay journalistes engagés déterminés yoo xamante ne keroog muy mooy sans boo fa demee am na ay journalistes yu engagé nga xamante ne keroog bi xeexee xeex bi doon jot. ñoom dañoo dem ba Casamance ba nga xam dañ doon joori Ousmane Sonko ay lekk xool leen journaliste yi keroog nga xamante ni am amul journaliste mais xool leen di am na benn daam bi naan saali xaw ma lan da nekk sans limite lu bari ak benn femme bu am yaram na teint noir ñooñu ay journaliste yoo xamante ni dañoo mën seen liggéey te wóor dama ni ku xool seen ay CV da ngay gis ni du ñu moroomu Salma kon Pape Alé Niang sa recrutement boobu vraiment amul benn sénégalais bu koy rafetlu noonu amul benn sénégalais waxuma la sax ñi nga xam ne ànd ak mais benn sénégalais parce que femme bi de un mérité wu ko am na journal yi ko gën a kawe gën ko xarañ waaw jeune la tellement jeune la waaw xëy na joué ngu ci jeune bi xaw ma lu la nag lu la incarné ci femme bi xaw ma pour naqaral bugaan la xaw ma tamit mais yooyu tamit da ko éviter parce que tamit Sonko li mu war a def yëpp def na ko ñi mu war a fal fal nañ leen ñi mu ànd pour wóolu ci gouvernement am na leen mu des nag yéen DG yi ak directeurs yi structures yi ngeen ne ñi ngeen di jël da ngeen war a xool seen compétent waaye seen ak démb seen démb lan la woon boo xam dañoo bokkoon ci ñuy diaboliser wala nanga te femme boobu dafa bokkoon ci ñuy diaboliser nekkuloon ci journaliste boo xamante ni journaliste par par loo la moom ah par par loo mooy boo gisee dëgg nga dëgg sa tànk soo gisee fen yëkkati mooy salma boobu ci la bokk amoon journaliste yo xamné ñi ngi ci biir patriote yi journaliste yu diñ doon informé ni information yi doon ñëwé ñoo ñi xol leen ñi ngi ci biir poste jaroon na sax bu leen ne waxee par parloo jël leen mais képp ko xamantene poste bi ya ko mérito. Naby Vision ak fu mu mën demal jël ko mais nag waxuñu journaliste waye waye wi fam bobu ku ne xamni ci waye waye la bokk loolu mom même Pape Alé buñ la ko waxul. sa conscience tranquille boo tëddee nelaw war nga xam ni yow nit parcours am ngay xool bu CV yi tegee ne après dangay ngay xool parcours bi vraiment nag waruñu leen jàngal seen liggéey mais bii sa choix moom c'est mauvais loolu moom lu ñuy am lu ñuy wax si yow barki démb nag ñu ñuy rafetlu suñu ministre bu bu bu bu baax boobu tabe boobu El Malick démb leeral nga lépp waaye plainte bi nga dugal moom ñu ngi lay ñaan procédure bi continuer gis nañ ne sax Pape Ngagne da la jéem a ñaan parce que waaye dëkk bi dafa toll foo xamante ni état bi du ay caaxaan ay fen warul te tax ñuy lëndëmal Sénégal Sénégalais seen xel yi képp ku leen fenal topp leen ko ci yoon képp ku leen wax dëgg xool leen li mu leen wax bu dee la cay dëgg ngeen jël ko la cay fen ngeen jël ko teg ko ci yoon parce que dëkk bi noonu la war a doxee parce que rupture maanaam dañu changement la ñuy wax waaw changement moom lépp da ciy bokk moy jikko yu ñaaw yi ah xam-xam yu doyadi ñu changement mom bu xasse ba a changer kon lolu la tay ci vidéo wax ko ci suñu yeneen vidéo suma mbokki ziar na leen gennatina Nabi Vision tay nak dama bëggoon ñu wax li nga xamne moy le parti pastif gis ngeen ñun amuñu ay opposant de Pastef ci bopom moy opposant ou Pastef gis ngeen pouvoir bi opposition moy Pastef et ses alliés nañ leen waxante deug dafa am lo xam li li Youssou Ndour nan wax ju ceeb bu sew moma gënal wax ju sew lañu focaliser nañu lek ci ceeb bu sew bi te bàyyi wax ju sew bi mi ngi bëgg bari nak da fay bëgg gis nga wolof njaay daf ne ku min so xulu yàpp la ku min so xulu yàpp la te nit ñaa ngi ñuy bëgg nit ñaa ngi bëgg min suñu xulu fuñu tok fuñu tok di wax wax ju sew wax jo xam ji amul bop, amul gen, damay yaakaar ne ñukoy wax xana dara nekkul ci seen xel yi

fa ñu jógee fi ñu toll ak fi ñu war a jëm parce que dama yaakaar nag ne am na ci ñun ñi nga xam ne dafa mel ne démb fekku leen fi c'est pas que ne fal nañ la DG kenn war warta wax nit ñi boo defee li dul yoon boo jàpp ni ngay jàppee ne yoon la noonu la lay nit ñi nekk ci tuus bi di leen di lay jàppe ne li nga def du yoon boo nangulee sa li ngay def boo nangulee sa bopp li ngay def nangulul ñeneen ñi liñ lay wax c'est ça munoo ne lépp lu ma def rek dëgg la loolu yàlla rek ko mën yàlla dong moo mën a taxaw ne li ma def dëgg la te encore bu ko defee pare am na doomu aadama yuy taxaw na du dëkk ne bu boobaa kon ñëpp nekk jullit il faut que nag ñu yeddaat suñu nous nous def nag chaque semaine chaque semaine à wax bu bees boo leen xoolee sama sama sortie toujours mi ngi gën fréquent pardon mi ngi gën là fréquente lay wax sortie bu ma def bu subaa nga génn bëgg def beneen à la limite da ngay dem ba yow ci sa bopp yi def sort da ngay tànqal nit ñi en fait t'as dara warul lu ko ludut

Euh, euh, coalition bi président ñi koy yak ndax fu ñu di def ay sorties amul amul ah, il va falloir mettre un terme à tout ça ku xamul ñu la na leen nit ñi dañ a ci place pour ngeen askan askan wi ngeen di liggéeyal buñ kontaanut ci seen liggey mënoo am maqama am musa ko waane ak ak dayo ba duñ la wax ne li ngay def doyuñu c'est aussi simple que ça nga ne kenn du ko fi waxee danañ ko wax danañ ko joxañ ja ngeen def mbokki patriote yi mbokki senegal ñi leen di nuyu di leen euh, ziar di bëgg ñep waaw tay dafa am ben constat buñ bëgg ñu ñëwoon inshallah allah euh, di nuyu patriote yëpp waaw lii mbir mi mooy euh, nomination boobu Pape Alé defal ndaw soosu à RTS euh, bon def na loolu xam na xëy na am na liberté am na indépendance boppam ba def ko ki jël mooy problème bi mooy kan mooy xawma asmaal xawma ko xamante ne bu doon moom dong bu desoon ci moom dong Ousmane Sonko du falo waaw bu doon bu desoon ci moom dong Pape Alé Niang mii ko jël tey du nekk directeur RTS parce que ku ne woon tey da nga mas a nekk directeur RTS il y a cinq mois ci suis Nabi Vision. suis venu à la en général parce que ñun Louga ici.. bu wala amul yeneen nomination mu Louga Aline Fall coordinateur lañ fi jël directeur de l'alphabétisation. xaw ñeneen Ndiaye maître Diop ngi fi keneen ak keneen ak keneen man programme leen wala ci xëy na député yi ñëw wala yu mel noonu ainsi de suite loolu xamagul mais ñun ci li président rek lañ mën a wax léegi d'accord dañ ne woon pàccoo amu fi pàccoo mooy lan ñëw mbir yi ñu séddoo ko waaye léegi comme ñun bu ñu rayantee ba gañe jaayante ba gañe faw euh, gouvernement la ñuy yor gouvernement la ñuy yor ay direction la ñuy yor ay ay ay yeneen ak yeneen la yor te ñu loolu ay nit la soxla léegi est-ce que ñun dañuy continuer ñun ne au nom de la démocratie parce que duñ paacoo dañuy fekk ñoo xamante ne suñoo bokk ci projet bi nga xam ne bu ñu sañoon du am yëmuñu jë waaye di yàq lu mel ne xeme ak di gasal kàmb ki nga xam ne moom moo porté combat muy Ousmane Sonko nekk ci groupe WhatsApp yi di jàppale nit ñi ñu leen di jàpp benn par benn di leen yóbbu prison ñu ne ci plateau yi di leen ñaawal di leen naqaral nii euh, ñu rey leen nii ñu def leen lépp ñu leen di ñaawal léegi

parce que ñii ils ne sont pas à l'abri de euh, ci ci ñi leen di détourner ak di leen distraire ak di leen di leen di leen di leen naxa ah, ay lobbying loolu moom nañ ko nañ ko xam Ousmane Sonko mun da capacité boobu parce que ka nga wóolu mooy wóolu keneen koo xamante bokk ci ba comme li pas à Niang def waaw ñu wolu ko mu nekk mu nekkon ci xex bi c'est vrai def ci lu nekk bañ def ko ci lu nekk te ku def ko ci lu nekk xoqatal nangam nangam mais mu genn ci ñew mel na dafa fàtte loolu dem jëli ko xamante mom ci ñi ko doon xex la bok bokk euh buñ nominé par exemple ma jël exemple Louga ñu nominé ñu bépp ñëpp bale baleen parce que euh patriote yi ñoom amul problème am nañ compréhension na nga xam ne ne patio amu fi mais jégg nañu mi waxu patio léegi li problème bi moy responsabiliser ñi nga xam na ñoo fi nekk parce que ay poste dañ ko mérité

ñu ne kii par exemple ñu ne El moom la parti bi yebal bu Louga pour ñu organiser waat pour mën a dem ci législative bi bu ñëwee kan lay waxal foofu mooy mbir mi quoi léegi da ngay jël ñi nga xam ne ñoo la doon xeex nga nga nga ne aco wala boog da ngay jël ñoo xamante ne ñoom faruñu woon wóoruñu woon fu ñu far parce que ñàkk a far bi moom moo dul yoon. bii Vision. li Macky Sall doon def gouvernement Macky Sall di ko def ak ñi àndal ñëpp ak i maara boobu mag ak ñëpp laa laa bokk def ci benn saak lañ doon def. képp koo xamante ne yor nga baat te waxoo ci naafeq lan la mën a tudde le mot n'est pas fort noonu rek la mën a tudde gis dëgg mënoo koo wax léegi nag bu échéance jotee léegi ñu bëgg ne wàcc ci Louga gi kan ak kan la ñuy waxal ñun bu ñu ñëwoon au niveau sunu sunu commune nga xam ne Kell la ñun ñoo fa doon xeex ñëpp xam nañ ko ba gagné ñu fekk ñoo xamante ne duñ duñ ca dara ñooñu ñu a kon ñu fal leen léegi bu ñu ñëwaatee Kell man est-ce que man kenn am na fitu taxaw naan ma kaay léegi loolu mooy sew sew mooy mbir mi bu dee gouvernement bi mën nañ ci d'accord parce que certains postes ay duñ ay apolitique lañ te foofu baax na amul problème boo jëlee mu buuba euh, jël keneen ak keneen ay peut-être ay Cheikh moom mi ngi woon sur le terrain loo ko jox mérité na ko mu buuba après lañ ko xam keneen ak keneen après lañ leen xam waaye bu fekkee ne am nga ñoo xamante ne ci Pastef mën na li ma buuba man c'était hors de question que nous jël nous loolu laa bëgg a wax Nous avons mi ngi def ay mais nga jël ñi nga xam ne dit la doon xeex guddi ak la que publiquement ñëpp dit dégg nga jël jox jox place nous place de ñan avons ñi après question est-ce que nous, ñun patriotes quest euh, lan bëgg ñun la bu Lac Rose jógee ñun la bu bal yi ñuy tiire ay bal perdu yeeg bal yi kii léegi ñun la ñi ñooy dee ñun ñooy ñoom dem rob yi ñëw ah ñu ñooy nooy Lac Rose yi ñoom la ñuy tëj di leen paquetage ñun ñi nga xam ne rek bon yàlla def na demuñu ci kaso demuñu ci demuñu ci kii waaye liñ doon sax daanaka moo raw kaso ndax liñ doon dégg ci suñuy koy suñuy roq suñuy dëkk moo gën a garaaw téeméer junni yoon foo toll ay magi jëm ay doomi xaraam yu tekku dara di la di saaga di wax parce que boo saagaa Sonko bu bu Ibrahima bu buñ ñëwee ñu xam ne Ibrahima Diop mii moom Sonko rek lay noyyee Sonko lay noyyee mooy projet bi lay noyyee changement lay noyyee xam nga ko ci Ousmane Sonko bu toogee boo saaga Ousmane Sonko moom nga saaga te ñoom ils le font délibérément comme ça. Naby Vision. léegi ñu bëgg dund yooyu yëpp métti woowu ak yii yëpp nga jël ñee ñoom taf si taf leen ñëw jox leen ay responsabilités parce que Paa la lii mu def Euh, dina ko réccu te parce que plus plus ñuy dem plus ñuy frustration yi di gën a bari te loolu am na lu mu nar léegi li ci des nag bon dañ ne 31 juillet le part le le le assemblée di am di am deux ans kon li ci war rek après subitement nga tas ko léegi bàyyi woo nga tas ko mu continuer nga may leen temps waxoon nañ ko waxoon nañ ci ko bu yàgg parce que ñoom waa APR ak ñi leen di jàppale ñoom bu bañuñu bañuñu Sonko de en vérité ñoom Sénégal lañ bëggul Senegal lañ bëggul parce que tamit boo ma nee boo ma nee Pape Sarr ngànn la dëkk waaye lépp lu baax ci ngànn moom ci lay jox ci lay wax jaral na ko dee jaral na ko xatraay jaral na ko grève de la faim jaral na ko dox ci àll bi jaral na ko jaral na ko lu nekk te yow leer na la pap sar moom bu ñëwee ngànn tey ngànn dootu manqué dara lu lu dëkk di am ngànn dana ko am léegi nga jàpp ne pap sar tu dugg ci dëkk bi di ko xas di ko defe nekk yow kon ba ñëw Pape Sarr ngànn nga bañ foofu lañuy ñuy légui nak nag ñëwé ci assemblée bi par exemple tasuñu ko bàyyi gaay ñu déroulé parce que ñom ñi ngi prédire wa APR né d'ici 6 mois d'ici 1 an euh Diomaye fay du tenir biñ ko ko waxé nak dañ ko motiver motiver bi moy direction yo dem par exemple sport bi dégg li ci Abdourahmane Diouf wax. Nabi Vision. budget bi nga xamné ci année bi luñ ko waroon a déroulé. Euh, compétition internationale yenen yenen ak yenen ak un an à six mois nga plus de 90 à 95% bi direction direction ci lañ ko def ci nettoyage d'ici six mois six mois à partir euh, gouvernement bi tenir parce que ñom liñ leen pendant un an Euh, luubal nañ ko jaxase nañ ko yàq nañ ko ci six mois yu njëkk yi kon les les restes de six mois jëm décembre yooyu ñoom jàpp nañ ne kon euh, mouvement dana am grève dana am parce que gars yi bu ñu liggéeyul fayuloo leen daañu yëngal léegi ci direction yëpp lañ ko waxee ak yeneen ak yeneen ak yeneen yeneen nga xam ne ñii ay saboteur lañ léegi nag gars yi dañuy dem ci plateau yi euh, di jéem a rafetal nangam ëpp naa wax comme ni ko président lii ëpp naa wax liñ def lépp ëpp naa wax ëpp naa wax léegi téye leen ko foofu. parce que opinion bi dafa laaj ñu ñu leen di ñu leen di ñu leen di éclairer di leen wax li xew bu ko seen xel gëna dal donc El al malik dem bi mu demee TFM bon soulage nañu bare bare bare laal nañu bare bare bare mom sedd na guy nii ci wax waye mom il est extraordinaire donc non donc la demee ñu né dañuy rafetal bàyyi population bi ñu leen di jaxase parce que nit bo toll ci mom diko ko diko di diko jaxase finalement lu bari da nga ko am ci mom waaw nañu risqué nak bàyyi nak assemblée bi ni mu déroulé. nabi Vision dem. gars yi gën a sàcc gën a kii ñu ne dañuy dem élection ak jàpp nit ñi leese leen ba pare bëgg a ñëw ci na na kaay leen campagne léegi on verra bu fekkee ne ci noonu ngeen bëgg